alors waaw man sax gis si mbir oui ñu euh, lay déglu Birame. Hmm. voilà voilà bon le musique c'est très simple hein. Ça hmm. veut dire que euh, Ousmane Sonko a parlé en tant que Pastef. am un droit investir un candidat. Hmm. voilà élection euh, présidentielle jëm. incha allah rabi le 25 février 2024. mille donc après cette bu gisee ne ñoom dañoo bëgg a investir seen candidat. le le Ousmane Sonko donc man gis ma si benn inconvénient gis ma si benn gàkk-gàkk. Hmm. voilà donc euh, loolu je les félicite de de de vive voix que ñu dem investir seen euh, candidat. Hmm. voilà loolu laa ma siy wax quoi. alors ñu dem investir seenu candidat fa nga xam ne itam mooy saan élection 2024 mais ñu gis ni euh, El Malick Ndiaye tey mu daal di jàpp ni Ousmane Sonko. dina dal dem wuy ji euh, boobu dañ nga xam que modi wo bi nga xam ne nañ ko mais est-ce que japp na ni ce sera peut-être possible vu que ni Ousmane Sonko batay mi ngi ci barricade bi. bon je pense pas je pense pas ça dépend juste hmm. euh, aspect juridique bi. ok voilà su fekkee tamit euh, aspect juridique bi procureur may na ko pour mu hmm. dem. Hmm. teewee lolu, je pense que mën na dem teewee lolu. Mais tu fais que c'est pas une possibilité. Bon, il ne vient investir un candidat pour Hamani, il n'est pas présent. Okay. C'est pas que quand tu es une cinq cinq investir de faire un nec ou de faire un nio ou le nio ou le ou comment dire ou autre nio. Mais nous avons un droit à réclamer à ce que c'est un candidat présent. Nous avons droit à vie. Et il y a quand même une chose si si jëm si loolu fekkee ne da koy jox jox ko fekkee da nga ko jox tamit bon de toute façon seen partem def seen investisseur hmm. investir seen leader Ousmane Sonko hmm. alors donc yaa ngi jàpp ni peut-être euh, suñ ko xañee lu nu mel euh, jot na nag partem daal di koy investir waaw si si am nañ si droit su leen neexee hmm. investir parce que pour l'instant Ousmane Sonko n'est pas encore condamné parce que amul benn euh, décision de justice boo xam ne c'est définitive voilà jusqu'à présent il y a des voies de recours yoo xam ne nii mun na ko am dem euh, nga xam ne mën nañ ko acquitter. Mm. Euh, totalement. Mm. parce que mu nek candidat donc jusqu'à présent. pas que euh, pas mesure de précaution. on mm. dama jàpp ne que mu nek candidat donc wa Partem tamit moo nekk mën a investir.

Euh, investiture bob ba tey euh, tey euh, communication bi nga xamni tam passé véhicule na ko à travers de son porte parole di ki nga xam ne modi El Malik. taxaw fum mu daal di taxaw que ni Ousmane Sonko mm, dina ñëw si boobu dina xam ne moo di ndaje exactement est ce que loolu tamit duñ ci am benn tiit jëm ñu daal di forcer li nga xam ne modi cette présence bu jëm si ki nga xam ne modi Ousmane Sonko. de toute façon xam nga ni ku nekk am nga droit wax loolu bon loolu loo sentir parce que aussi y a la liberté d'expression. mom hmm. su taxee wax loolu loolu mu wax bon peut être am ko teg. mais. Hmm. man hmm. Euh, pour man. que Ousmane Sonko soit présent. que que Ousmane Sonko ne soit pas présent. pour man ñaari. waaw Birame soo mënee baat bi rek voix bi allo Birame. parce que tey. parce que tey pour investir. Ousmane Sonko. Hmm. je pense que mun na ñëw que mën na bañ a ñëw mais investiture moom day am. Hmm. yaa ngi dégg parce que mën nañ ko investir mu bañ a teew. Hmm. nga xam ne incha allah rabi te gis nañ fi le président Macky Sall avant mu renoncer à sa troisième candidature. ay ñoñoom dañ ko doon investir de gauche à droite de ay mobilisation te mos na teew si benn investiture donc tey ñoom mun nañ ko investir que mu ñëw bañ a na seen bëgg-bëgg la. tey. wax El lu wax noonu bëgg-bëggam la. gëm gëm-gëmam la yaa ngi hmm. mais incha allah di ñaan euh, di lancer un appel euh, au président Macky Sall mu def lepp lu mu def pour jàppale que Ousmane Sonko teew ci investiture boobu non parce patam ñoko investir. Hmm. Hmm. donc am nga si yaakaar que ni peut-être Ousmane Sonko dina ci daal di mais teew boo xamni tam euh ci ben stabilité la. wa ma pourquoi pas pourquoi parce que man. gowmane dëkk bi ờ, denk denk ko war a yëngal wala dañ ko war a jaxase man gowma loolu hmm. parce que lu fi doon xew bëggoon nañ ko imputé opposition bi te man jàpp naa du opposition bi yaa dégg donc nag pour que dëkk bi am jàmm ñun ñëpp seen intérêt la hmm. intérêt Ousmane Sonko la hmm. intérêt Macky Sall intérêt Mimi Touré intérêt ñëpp la te képp ki yeewoo Sénégal Sénégal nekk si jàmm intérêt ñëpp la moo tax man ne lépp loo lépp loo gis dañ ko war a waxtaanee

pas daal di de focus Ousmane Sonko exactement focus bi nak boobu ba tey amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan C alors pour yow peut-être sa xel match jëm si communication ben message lañ si bëgg véhiculer à dans ce sens. ah mais c'est normal <laughs> non déggoon nañu fi récemment euh, parti politique euh, du parti politique coalition ben bokk yaakaar. ok wax récemment. Hmm. taxaw na ñëw amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan C ñu am ñu maxal mo sen plan A mo sen plan B mo sen plan C. te tey gis nañ le président Macky Sall tey. Hmm. Euh, taxaw na wax leen carrément man du ma dem def yi troisième candidature. yaa di léegi ñoom nag ñu ngi jëm lijjanti ka ma seen candidat. ñoom ñu hmm. ko lijjanti entre ñoom. Hmm. mais waa Pastef tamit suñu gisee ne Ousmane Sonko c'est c'est le seul leader incontournable mais ñoom tamit am nañ droit taxaw ne Ousmane Sonko xooluñu plan A xooluñu plan B xooluñu plan C ñoom ñoo seen candidat. par exemple je donne le de la présidente Aminata Touré. ñu ànd moom di liggéey moom. si taxaw ne non man aw plan A aw plan B un plan C man. ak président am un candidat. voilà donc c'est la liberté d'expression. expression ku nekk am nga droit wax kan mooy sa candidat. Hmm. que à part moi de Kenen. alors euh, mais quand même du euh, gis ni euh, certes am ñoo xam ni peut-être que néew le mën candidaté ñi seen candidat leer na mais ñu gis ni Sonko candidature mi ngi ci benn sursis manam mi ngi entre li nga xam ne di le marteau et l'enclume exactement parce que si conseil constitutionnel il faut mu décider à la dans sens waaye itam ñaari dossier mi ngi si kawam donte sax décision finale bi rendul ñu ko mais quand même décision li nga xam ne di peut-être euh, bi ñu gis ni pour le moment da ko daal di exactement est-ce que euh, jëmono ji japp nga ni euh, candidat Ousmane Sonko elle est assurée à 100 mais pourquoi pas man loolu laa jàpp parce que dama gis ne euh, président Ousmane Sonko pour l'instant yoon daanugu ko daan boo xam ne ñu ne kii nekk candidat. Hmm. il y a des de recours yoo xam ne yoon may na ko. Hmm. en tant que sénégalais. soo xoolee le problème qu'il a avec euh, Mame Mbaye am na benn voie de recours boo xam ne moo ko def c'est le pouvoir de cassation. Hmm. boo xam ne tey am na droit dem appel. ñi attawaat soo xoolee le cas de ci tamit am na droit def appel danga koy jugé par contumace mais si rajo prisonnier am na droit nekk defaat appel hmm. donc jusqu'à présent man damay jàpp ne ko guñ ko si yoon loo xam ne nii nii définitivement définitivement waxta mën ta nekk candidat man gisaguma gisuma loolu quoi donc hmm. ñoom nag seulement parti si leen neexee mun nañ ko jéem a investir donc man loolu laa gëm gisaguma loolu laa gëm donc euh, suñ taxawee boo ko investir neneen baa ñu investir ko ok alors euh, bidom, on évolue un peu par rapport ak euh, boobu de li nga que euh, élection exactement sànq yaa ngi ko doon tudd li nga xam ne que cour de cassation mais récemment saisir na li n'a xam que la cour suprême peut-être li n'a xam ni itam ñal na mbiram ak ki nga que moo di est-ce que yaakaar nga ne exactement dina am li nga xam ne que moo di de cause fa n'a xam ni itam mooy zaanu ko cour suprême. ah pourquoi pas man man j'ai confiance à nos juges hein? pourquoi pas tey si juge du demee si dossier demee

Euh, donc il y a benn classement jóge si li nga xam nekk la plus haute euh, cour de la justice li nga xam nekk euh, moo justement cour suprême. non j'ai pas compris. Mais il y a si xalaat donc ñu classé dossier bi de manière définitive non lieu du si li nga xam cour suprême. pourquoi pas. mën na nekkee. parce que si tey soo gisee tey nit am droit def appel. parce que soo gisee ne fii ñu ma atee bi leerul am nga droit def appel. ok cour supérieur bi ñu atee. soo demee def appel foofu cour supérieur su gisee tamit ah li nga wax dëgg hmm. la. ñu ne ah kon li nga wax dëgg la donc li nga jugé baax dañ ko dindi. li di ak yëpp yëpp yëpp la nga koy tegal tout mooy. baax baax dem nekk nekk candidat te man jamono ji sax man man sama slogan mooy ne ñëpp nekk candidat. ñëpp kenn parce que man lan laa ñëpp tout le monde. candidat le alors euh, ah. mais quand même aussi euh, Birame euh, récemment ni assisté à bien bi bien fait. tam xam kan candidat candidat est-ce que état de droit peut-être dina ko honorer exactement. non de toute façon pour la pour la première fois dans politique de ce pays là. on est à cinq mois des élections ba léegi xamuñ ndax diw day candidat wala du nekk candidat ko hmm. parce que instant bi war nañ mën a xam candidat yi a dem pour compétir pour que Sénégal yi tamit daan seen seen hmm. parce que tey Sénégal yi dem compétir ñooy présenté seen programme. Hmm. mais malheureusement instant bi si tey jii ñu bëri am na parti politique yoo xam ne mënuñ sa wax waxu programme. parce que xamuñ sax ndax dina nekk candidat wala dina candidat. donc loolu c' est à tey war neen bàyyi mun a bàyyi kaay man par exemple je crois je prends un cas. Hmm. si tey ñu bàyyi Karim Wade war a nekk candidat Sénégal mais pourquoi pas Ousmane Sonko tey Karim Wade yoon da ko jàppoon teg ko loxo. ba nga tegee loxo mu dem prison na penam ga comme ni nga ko waxee. Hmm. mais jusqu'à présent dafa am amende boo xam da ko amel Sénégal yi. cent trente huit milliards. mais amende bi est-ce que moom fay na ko Sénégal yi. non su ko fay saa kon nan la mun a am nan la ko yor mun a joxe. dëgg hmm. bu tey Karim Wade a nekk. candidat. Hmm. donc si vous faites le monde, ah, jusqu'à ce que candidat donc pourquoi pas Ousmane Sonko. Hmm. man si hmm. alors euh, euh, donc Jacques euh, nga dit dit que bataille bataille peut-être programme que par rapport qui qui vous candidat exactement. Euh, non mais la wax rek c'est-à-dire ñu hmm. xam kuy hmm. vrai que conseil euh, sur ça oui parce que jours avant le jour de l'exclusion xam def la euh, que quoi la des à la candidature donc tay le 25 septembre hmm. war nañ xam ñan ñoy jointé ji si élection euh février 2024. donc le 25 septembre on na war a l'air. a leer si bopp askan. pour war na mën suspense voilà voilà on nous mën a leer parce que 180 jours avant le jour de le scrutin. ok soo calculé mais le 25 septembre euh, Inch'Allah. rabi donc man dama il n'y a pas de parce que pour ans. dañu war a bàyyi ñëpp xam ne ah man de candidat laa léegi suñu hmm. demee nag parrainage yaa ngi parce que parrainage yi tamit am nañ ay coppate yu ñu si indi bu njëkk ba un pour cent nga doon dégg maximum huit euh, zéro virgule pour cent minimum léegi nag c'est zéro virgule six pour cent minimum zéro virgule pour cent maximum il y a aussi le parrainage des élus tey euh, élus yi soo amee maire ou bien conseil président de conseil départemental. tey nekk automatiquement candidat. Hmm. su am nga treize députés yoo xam ne tey dañ la parrainé. Hmm. yow da nga automatiquement sont tout ça sont des coppite yu bees yoo xam ne dañ ko indi moo tax président Macky Sall dernier dernièrement mu def benn projet de loi boo dugg assemblée nationale. Hmm. pour que coppite yooyu ñu ko par rapport tey si code électoral bi par rapport dem si lépp loo xam ne dañ ko changé. alors dañuy exactement si code électoral par rapport ak indiwaat euh, gi xam ne indiwaat nañ ko Karim Wade ak ki nga ne moo di Khalifa Sall biram si suñu bi waxtaan alors dañuy daal di wëyal wax aussi si leneen li nga xam ne itam jaaxal na loolu li nga